ci Sénégal mbir la moo xam ne yàgg na fi genn xeetu yàgg goo xam ne mënuñoo ñëw rek jekk-jekk daal di ko fiy jëlee ndax dëgër na fi këcc ci genn xeetu dëgër goo xam ne dafa am nag ay feem ak i doxalin yoo xam ne moom lañ ci war a jiital rawatina lu jëm ci wàllum dialogue ndax nag dafa am loo xam ne il faut dafay laaj temps bu bare bare bare journal bi nee na Alioune Tine ak Maître Assane Dioma Ndiaye ak kuréel yi nga xam ne ñooy xeex lépp loo xam ne jëm na ci àq ak yelleefu doomu aadama ñoom mer nañ ba maara de tali ñaawlu nañ bu baax a baax doxalin wii nga xam ne village bi di pour dañee daat nañ koy doxalee ndax nee dégguñu ko fenn yéenekaay gi de la Tribune bàyyi mbir moomee wax ci mbirum CNO CNO jamono ji sonal nañu askanu Sénégal ba maara détail yi jamono ji ñu baree bari dañoo mara ndax nag bëri na ay quartier yoo xamante ni amuñu ndox ñi nga xam ne ñoo joto am ndox ndox mu bon mi nga xam ne moom lañ leen di joxu maanaam jégg na dayoo facture yi nga xam ne cher na ba maara détail yi loolee tamit war nañu ko wax ndax bëri gox yoo xam ne ndox mi dafay coupé ak coupé waat bi nee na benn pexe rek moo am njiitu réew mi li nga xam ne mooy dossier bi maanaam jël ko rey askanu Sénégal di leen tekk tumuranke goo xam ne jégg na dayoo yéen kaay gi di réew mi quotidien ak le témoin ak l'observateur xëy ci rapport secteur extractif yi maanaam lu jëm ci wàllum ressources naturelles yi journal bi nee bi dafa gën yokk ndax bi 134 la wona yéen kaay gi di la sa li mu gis nee na lu jëm ci wàllum industrie extractive yi maanaam gis nañu daal li ñuy contribuer ci PIB bi dafa tuuti lool yéen a kay gii di Les Échos ne na Sabodala nag mooy premier producteur or ndax nag lu toll ci juróom-ñaar cay toni or yoo xamante ni daan na koy produire moom Sabodala mooy premier producteur surnal bii di Libération daal di xëy nag ci kër gi di IPRES SICAP POSO LONAS Trésor journal bi ne na kër yi nag musiba ma ba kumba gu rëy moo fa am ndax nag ronqi nañ fa xaalis boo xamante ni jéggi na dayoo toll na ci douze milliards maanaam fukk ak ñaar ci milliards yoo xam ne daan nañu koy ronqi ci kër yi di IPRES SICAP poste LONASE trésor loolu nag doy na waar génn xeetu doy war goo xam ne fu ko waaye nag daan na koy passé waaye nag li nga xam ne moo xew si kaab loolee moo garaaw journal bi nee na lu toll si ñeenti milliards ñeenti milliards la ñu sàcc fi nga xam ne maanaam mooy sikaab xam nañ ñi nga xam ne ñoo ko sàcc te jamono ji maanaam ñoo ngi dox seeni soxla te dara fekku leen ci maanaam good fine na yéen kaay gi di réew mi quotidien xëy dañu xibaar naan ñu train express régional bi daan nañu koy inauguré waaye nag am na ay sénégalais yoo xam ne nee na ñu nag dañoo am mbetteel dañoo am mbetteel ci train express régional bi ndax nag li nga xam ne moom la ñu wax ne moom la ñuy fay loole dafa cher ba maara day talee am na ay sénégalais yoo xam ne jegewuñ sax pare ngir nag dugg ci train express régional bi ñoom ne nañu dañ si am mbette ndax nag diggante Dakar ak caaro yi maanaam téeméer la nee nañu loolu dafa cher diggante Dakar ak Tëngéej ca 1000 francs nee nañu loolee nag dafa cher ba maara day talee diggante Dakar ak Diamniadio 1500 ñetti téeméer nee nañu nag loolee dafa cher ba maara day talee jamono ji kay ñi nga xamante ni ñoo yëkkati seen kàddu mi loolee ñoom daal nee nañu train bi fii koy bàyyi na fi ñu ko nag yàq bu forox dem nag jëli car rapide ak Ndiaga Ndiaye car rapide ak Ndiaga Ndiaye journal ñu xëy fekk fa Amadou Hott mi nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllum économie Amadou Hott nee na daal bu dee train express régional bi dafa cher dem leen xool feneen foo xamante ne yomb na Amadou Hott moo ko wax mooy ministre bi ñu dénk wàllum économie bi yéen a kaay gii di las xëy ñu yóbbu diwaanu Ziguinchor nee na ñi nga xam ne nañu lu juróom benn weer ci ay payoor ci salaire kenn fayu leen ko moo tax nag jamono ji jaaxle nañ ba maara détaillé bu passé juróom benn weer yoo xamante ne fayu ñu leen ko am na tamit ñetti weer yoo xamante ni nag seeni prime lañ leen waroon a jox te joxuñu leen ko yéene kaay gi di réew mi quotidien nee na étudiant yi nga xamante ni ñoom la ñu orienté ci université privée yi jamono ji mer nañu ba maara détaillé étudiant yi nag mer nañu nee nañu nag tey ko waral étudiant yooyu nee nañu léegi tey état bu Sénégal moo amal université privée yi lu toll ci seize milliards ba pare nag lànk kandaare bañ leen a fay ñoom étudiants yi nee nañu nag jamono ji daal njàng mu bon a bon a bon la ñuy jàng condition yoo xamante ni maanaam bon na xeetu bon goo xamante ni fu ko waaye natt daan na koy passé beneen bi nag am na nag ay étudiants yoo xam ne ñoom jàng nañ def nañ seen formation ba pare waaye jamono ji pour ñu jot seeni diplôme nag maanaam jafe na leen loola yéen kaay gi di xëy di ñu xibaar naan ñu Kalidou Koulibaly jamono ji moom jàpp na ne daal coupe d'Afrique bi daal dina fubal nag match bu njëkk bi dana fekk